alors Bamba tey ñu ñëw fii euh, nga explique ñu un peu projet bi lan moo ko war. waaw maa ngi leen di nuyu donc di nuy waa Sénégal di sant sama sëriñ Cheikh Béthio di ñaan mu yàgg fi la tànn donc leen nuyu yéen waa Sénégal donc tey dañ fi woote woon ngir juste. présenté benn projet boo xam ne dañ ko mag euh, Sidi muy contrat boo xam ne contrat d'exclusivité la donc pour deux ans donc ñu signé moom euh, d'une hauteur de cinquante millions donc ñu war a def lancement bi muy le set bi incha allah donc le set bi li nga xam ne moo gën a jàmp ci projet bi mooy soirée bi nga xam ne dañ koy jël tuddee ko seeni frère muy soirée sàggal Cheikh Amar donc ñu fas yéene ko def muy le set bi le 7 décembre fële ci Sorano donc moo taxoon tey ñu woo journaliste yi pour présenter leen projet bi en même temps pour leeral aussi parce que ñu bëri boobalee dañuy gis à travers réseau yi wala stat yi wala Facebook yi ñu naan Sidy day takk jabar ñi naan Sidy day def mouvement politique day lancer mouvement bi coow li bëri woon donc loolu lañ doon leeral pour ñu xam ne du woon takk jabar du woon lenn projet la liggéey la boo xam ne dañ ko fas yéene def muy fii Sénégal aussi fii si bitim réew am ñoo xam ne dañ liggéey comme suñu frère Matar dégg ngeen ko baax loo xam ne yàgg nañ ko tënk boobu signé guñu sax contrat bi kon am nañ mbébét yóbbu si di Zénith donc nit ki nag aussi euh, jaam bi moom dogalam la euh, kii am ak la am pexem après yàlla lay dogal mais incha allahu rek daal loolu la ñu fas yéene def. ñu dégg 50 millions la dans deux ans mën nañu xam ñaata date la exact xamaguñu. waaw 50 millions yi dans deux ans mooy que ne dañoo fas yéene incha allah rabi bu ñuy ciblé nañ Sorano bu ñu jógee Sorano dañu jéem a xool place de souvenir bu ñu jógee place de souvenir dem Grand Théâtre noonu lañ ko fas def.